baax ndax sëriñ bi moom saa su ne du jub ci du jub dina lislaam ndam rawatina nag ñun kon tey buñ demee ba taxawal jumaa ju toll ni ci Jinaan taxawal ko ci biir Ndakaaru loolu ak cantaat la waaye nag sëriñ bi moom amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am tey tamit lam it leer na moom neewoon na diinun siwaa islaami wala yahmadu indal ilaahi wa bihi benn mujaddid laa boo xam ne damaa ñëw ci jamono ngir yeesal diinal islaam kon nag kii yeesal moom saa su ne ay ndamam moom ca kanam rek la jëm kon nag loolu moom ñun dañ ci sant bu baax a baax a waaye nag sant gi ñu gën a santaat mooy eh, la may wax ci Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina ndax saa su ma wax rek ci moom laay tàmbalee ndax moom wane sëriñ bi naka la wane tamit naka la ñuy liggéeyalee sëriñ bi waaw ndax moom moo ko yàgg jàngale daana wax naan kat liggéey sëñ Bàmba bi kat jàpp leen si ndax bu ngeen si jàppee dana dem bu ngeen si jàppul dem kon jàpp leen si muy dem mu mel ni yéen a koy doxal kon jàpp googee nga xam ne murid yi ñu ngi ci jàpp nag loolee moom moo waral tey lii lépp am waaye nag dañ ciy santaat bu baax di ñaanal sëriñ Mouhamadul Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te wër di bëgg bu baax it wax dëgg yàlla ci liggéey bi am na solo lool ndax sëriñ bi moom lépp loo xam ne def na ko rek ñun saay su ne rek war ñoo am jumtukaay yoo xam ne moo koy wane di ko tasaare ndax su boobaa loolu bokk na ci li nga xam ne dana dana dana yaatal liggéey bi waaye nag sant nañ ci bu baax a baax tey tamit ndakaaru gi nga xam ne fa la amee loolu dañ ci santaat bu baax ndax ku ne xam na la fa sëriñ ba daj saa sune ne boo ko li ko sëriñ bi di waxee xol yëpp dana yëngu kon buñ demaatee ba taxawal fa lu mel noonu ak cant la ci ñun ñëpp waaye di ñaanal sëriñ Mouhamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te wér waaw loolu day fal jege loolu moom xam nga ñun moom jekk nañ ci bu yàgg ndax maanaam eh, Cheikh Ibrahima bu ñu waxee ku yaakaar Sëriñ Tuubaa moom ñëpp ci lañ bokk waaye nag Cheikh Ibrahima day daal di jóg moo tax Baye Fall yi ñëpp waajal nañ ko niñ ko war a waajalee fas yéenee tamit def bëggug sëriñ bi ndax Baye Fall yi moom saa su ne lu sëriñ bi bëgg rek ñoom li li ñuy def mooy defuk bëggam ndax na xam ne kat sëriñ bi kat ñun li fi ak sunu bëgg di di mat bëggug bi day mat ba noppi li fi ak bëggug sëriñ bi mënta mat nag sunu bëgg mënta mat kon ñun saa su rek bëggug sëriñ bi mooy li nga xam ne moom moo ñu yëkkati. sëriñ bi lépp lu mu wax ak fu mu ko waxee ak fu mu ko bëggee rek Baye Fall yi moom pare nañ pour def loolu ndax ak Baye Fall kat jëfe ndigal kat mooy li nga xam ne moom moo koy yokk di ko jariñ saa su noppee jëfe ndigal su boobaa euh, mënatu dañ nekk waaw. <laughs> waaw comportement bi moom li ñu war a comportement dëgg-dëgg moom mooy comportement murit rek ndax comme ndakaaru la te fa ñu ko sëriñ bi jox mu jàppandi fa mel fa noonu te ndakaaru ku ne xam na ne kon xam na ko léegi nag lu toll noonu sëriñ bi am ko fa taxawal ko fa taxawal fa jumaa ju toll noonu comportement boo xam ne comportement murit rek lay nekk comportement murit la ñuy la yor àgg wan a yar teggin euh, bégal sëriñ bi dundal ko wan ko ne ko ñu ngi nii lii bég nañ ci wax dëgg yàlla ndax it ndamu lislaam la ndamu jullit yëpp la ndax sëriñ bi ma moom ku xam na eh, lim lim daj ci Gabon lim daj feneen ak feneen ak feneen eh, kon ba muy ñaan jumaa yi njaareem ak Touba tey mu demaat ba jumaa ji amaat loolu ak cant la te ku ne xam na ne ba ñuy taxawal jumaa ji taroon na lool ci sëñ Modou Moussa Mbacké ba ñuy xëcc raay bi taroon na lool te raay bi bañ koy xëcc Cheikh Ibra bi Baye Ibra Fall Madior nett le na ne eh, Cheikh fekk na dala gii la leen dabee ba mu ñëwee fekk leen ñuy gas raay bi dafa wàcc Cheikh Ibra boobu mi ngi yoroon oto Volkswagen bi mu wàccee ànd ak ñi war a àndal ñëpp pour wane liggéeyu sëñ Bamba ni mu amee solo dafa wàcc taxaw daal di laaj peel ñu jox ko mu tibb juróom-ñaari peel sotti daan ne addoom yéen a ngi ñu ne ko faal noo mu ne leen man it maa ngi daan ne addoom yéen a ngi may gis ñu ne ko ah faal gis nañ leen mu ne ah man it gis naa leen daan ne addoom na ngeen ma seedal pour wane ne teew ci teew ci ndigalu sëriñ bi dafa am solo pour booba day wane ne ñu gis la ci liggéeyu sëñ Bamba ki la gis bu ëllëgee dana la seede mu ne ah doom yéen ma gis ñu ne ko faal gis na leen mu ne ah gis naa leen ah ah doom na ngeen ma seedeel na ngeen ma seedeel daan ne ah doom Touba faree mu ñu ne ko nii ñu dem ba koy wax mu ne ah ba leen ko sax xam naa ko daan ne daa dafa teg lu am solo loo xam daf ne liggéeyu sëñ Bamba bii kat ku ci yónni sa doom toog bu ñëwee di sa baay ku ci yónni sa rakk toog bu ñëwee di sa mag daan ne ku ci yónni sa jabar toog sax bu ñëwee di sa jëkkër daan ne ku daan ne ku ci yónni bu ñëwee di sa sëriñ daan ne leen doom lii tax ma ñëw daan na watit ak xubbit ci jaan la bokk waaye taxul kenn dajeg dangar Cheikh Ibra nee na watit mooy alxuraan xubbit kat mooy addis waaye jaan ji nag mooy sëñ Bamba doom liggéeyal leen ko mu màtta leen ku leen gis xam ne daje ngeen ak dangar kon nag lépp loo xam ne sëriñ bi digle na ko ñañ nañ ci jàpp dem ci tañ xam ne kat lépp mën nañoo jëriñ nag waaye bëggu sëriñ bi nag mooy li jëriñ am murit kat kon daal ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jàmm ak tawféex <laughs> ci doole Serap Fall Fallou Ndiaye Baye Fall Touba 28 <laughs> maa ngi siyaar bu baax